l'impression que c'était un représentant du ministère. Ce que j'ai dit. Ouais, parce que après, j'ai pas compris que que c'est pas un enseignant non voilà, non. Ils ont faux frère. <coughs> Non. <coughs> non. parce que j'ai pas j'ai pas en fait, j'ai pas compris parce que j'ai l'impression que en fait Oui, non, kenn yónni wu ko mais qu'il cherche à plaire. <laughs> À plaire qui? je ne sais pas je ne sais pas hein, je tu cherches à plaire kii on est dans un débat on discute ma dégg la tu es un enseignant tu as servi à Ngidjilone tu as servi un peu partout c'est-à-dire que tu as fait du chemin yow vraiment dox nga quoi yow vraiment li ñuy wax ni mooy li ñuy wax carboté nga bu fekkee mil ci armée nga nekk mooy carboté nga c'est-à-dire yow vrai enseignant nga vrai enseignant li ñuy xaar ci moom sur un plateau mooy qu'il nous dise parce que yow tu n'es pas sans savoir que dans les écoles publiques c'est des écoles avec la ak classe ay classe pléthorique la ñuy am de quatre-vingt-cinq élèves de soixante-quinze élèves écoles yi boo demee ci yenn école publique yi tu as mille élèves boo demee ay école njaareem wala nga dem ay école daaru xan c'est trois écoles dans une dans une école dans une c'est-à-dire c'est des concessions c'est une concession d'école da ngay am 23A 23B 23C booy yi yaa ngi wax deux par mais trois par table la ñuy toog te ci biir école yooyu am na ay écoles yi nga xamante ne e-, effectivement dafa am ay élèves yoo yoo xamante ne ñoo gën a vulnérable yeneen élèves yi mm-hmm. parce que am na élèves yi nga xamante ne c' est des non voyants ñii ay malvoyants la ñu ñii c' est des handicapés ñii c' est des aveugles et cetera et cetera c' est des élèves exposés c' est le cas de certains élèves euh, à à Wakhinane par exemple. Talibou Dabo. à Talibou Dabo et cetera et cetera donc en fait pour ñun mun nga am sa position ah. qui dit exactement la vérité qui dit effectivement ce qui se passe. mais tu ne peux pas t'ériger en défenseur de du ministère parce que oui tu n'as pas yow sa sa sa sa wareef mooy effectivement défendre sa wareef mooy jàngale xale yi et à la limite même protéger les enfants parce que le devoir d'un enseignant wareefam bi jiitu moom mooy protéger xale yi parce que boo leen protéger wul doo leen mën a jàngal et on a besoin effectivement d'élèves sains pour pour sax ñu mun leen transmettre mun leen jàngal beneen affaire bi ci topp mooy man dama xam kan moo ñu wax kan moo wax ni c'est-à-dire kan moo wax ni virus bi ci école bi la ci école yi la nekk kii laa est-ce que virus est-ce que ci école yi la nekk. cest à di c'est-à-dire on a chaque jour mais rentre dans les gargotes nit ñi dañuy waxtaan di yuuxu. rentre dans les marchés nit ñi dañuy waxtaan ci yu ay eh, jaay ma jën ñëw. on eh, à l'école. non mais ah, mais c'est-à-dire. dans plusieurs endroits on pose le cas de l'école dama ne la bu ñu réduire. Hmm. bu ñu réduire horaire u école yi war nañu effectivement ne marché yi une fois par semaine la ñuy tijji c'est beaucoup plus cohérent <coughs> ne car yi ak njaganjaay yi ak tata yi waratuñu yàpp plus de temps de personnes hmm. parce que. mais wax parce que no dama ne. y a pas de la xam nga une règle une dama ne bu ñu bu ñu jëlee benn dogal. te dogal bi amul suivi dogal bi amul benn njëriñ. li jox sens loi c'est son application. Mhm. quand par de parité sans application la parité n'a pas n'a pas son sens. quand on parle de justice dans un pays sans sans son application nit sàcc Charles dugg kër kër Charles ñu jàpp ko muy sàcc après ñu ne ko demal ñibbi. quand la loi ne s'applique pas, ça n'a pas de sens. Hmm. Il faut aussi que ñu comprendre que même pour nous développer, appliquer la loi dans une, dans la, dans une période de crise, l'appliquer de manière efficace, c'est une forme de résilience parce que ça met quelque chose dans les caisses de l'État. yooyu aspect yooyu aussi foog ñu comprendre ko. Hmm. man li ma mënul comprendre mooy boo teree booy yi nga école na 14 heures effectivement wàcc nañ. est-ce que le virus effectivement. day wàcc est-ce que le virus day wàcc day est-ce que le virus prend congé. c'est-à-dire. est-ce qu'il fait la sieste. est-ce qu'il fait quoi est-ce qu'il attend les élèves et puis les élèves quand est-ce que le par exemple est-ce que dañ ne virus bi par exemple de 14 heures. de telle heure à telle heure la fay nekk. Hmm. c'est un truc que j'ai du que j'ai des problèmes à comprendre. Ah, loolu lu ñu war xam lool loolu lu ñu non mais c'est à peu près la même chose c'est-à-dire on est en train de panique de paniquer. Mm-hmm. il ne faut pas qu'on perde notre lucidité parce que effectivement benn affaire am na nit ñëpp jaxasoo c'est-à-dire il faut aussi que quelle que soit la crise mm-hmm. qu'on garde notre lucidité mais hmm. aussi qu'on garde ñu garder benn espace de vie. mën a dund tuuti parce que il ne faut pas que cette crise la nous rende malades mm. aussi c'est mm. psychologiquement mm. il ne faut pas qu'on devienne fou parce que oui pour en fait on tergiverse ton ami on partisan du relâchement que non non on tergiverse parce que effectivement on ne donne pas on ne laisse pas ñi war a wax dëggantaan ñi war a jiitu ci xeex bi jiitu wuñ ci pour man on doit véritablement ñan ñan par exemple pour man le man le personnel médical les médecins les scientifiques. waaw dañ leen war a jox. seen cër ba mu mat sëkk. kenn déggu ba pare ñoom ñoo war a def di dindi. parce que effectivement bu mat non dama ne la bu coupe d'Afrique non non dama ne la non non déglu ma dans un match de foot. Sénégal buy jouer on doit écouter les technicien de football on doit écouter les joueurs et cetera et cetera. c'est-à-dire man mënuma nekk par exemple un n'importe qui je connais absolument rien du foot je awma ci benn xam-xam man ñu bëgg ma waxuma sama kàddu amul solo am naa sax lu ma ci war a mën a wax mm-hmm. mais waruñu ma jiital c'est-à-dire ci non je ne dis pas n'importe quoi dama ne bu ñuy ah, xeex dama ne malal mais laisse lui euh, malal buuba aussi malal may may may développé waaw